الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون قد احتفلنا قبل عشرة أيام بذكرى غيبة الشيخ الخديم البحرية وقمنا بما طلب منا من إعانته على شكر الله على النعم والمواهب الجليلة التي اختصه بها بعد محنة الغيبة وانتهزنا الفرصة لمدارسة حياته وتعاليمه وبمدارسة حياته رأينا أن من أسباب هذه الغيبة ما يرجع إلى قومه وهو أن الله أراد أن يكون شافعا لهم سبب غيبتي أن الله أراد أن أنال منه جاها وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في الدوم وهذه الشفاعة أيها الإخوة المؤمنون تكون في الدنيا قبل الآخرة فقد حمى قومه من التغريب وأرشدهم إلى طريق النجاة وقاد من قبل منهم على هذا الطريق بالتربية والتعليم وفي مقابل هذه الشفاعة يجب علينا أن نشكره نتقيد بمبادئ طريقته من طلب العلم النافع وممارسة العمل الصالح والتحلي بالأدب المرضي مع كسب الحلال نون سنت يالا دي صلى الله عليه واله وسلم دي نان يالا مودول كو خيو لا كو موج موما كو نجابو دام اك صحابام اك كيب كو جار جاو يونام ادني بوكي ci fan yi weesu rek bokk nanu doon màggal tukki géej gi bu sëriñ bi li mu sàkk woon ci nun mooy nu jàppale ko ci sant yàlla itam def nanu ko sant yàlla ci xéewal ak may yu mag bi yim ko may ginnaaw tukki bii nga xam ne te loolu sababoo ci biir loolu itam nafar nañu ci nafar nanu ci ay jaar-jaaram nafar nanu ci itam am njàngleen ci biir nafar googu ci lanu xamee ne sababi tukki boobu bokk na ci loo xam ne ci nun la dellusi te loola mooy mu lu yàlla nammoon moom sëriñ bi mu doon kuy ràmmoo xeetam moo wax ne sama tukki géej gii li ko waral bokk na ci namm gu yàlla namm ma doon kuy ràmm sama xeet ràmm googu nag bokk yi ci àddina ji lay tàmbale ci la tàmbale tàmbale na ci ba noppi ci àddina la tàmbalee balaa àllaaxira ñëw àddina ni mu ci ràmmoo xeetam mooy xettili na leen ba tubaab bi këfu leen moomu leen tubaab bi loolu la bëggoon كيف خلي لبني أكسام الخل سرين بي أرنا أو خاتم وتبع بي كيف أكسام الخل كيف أكسام الخل لولو رمول رمول نلا ينتم تي خمر لين يوان ويتخ بو ألقي نيو منموت خمر نبا أو خاتم ليتخ يوان واو كوتش جار بو ألقي دانموت خمر نبا أو خاتم لولو تم رمول بكونك رمو جيم دفتي أدنسيت موي نيكو dénk seen bopp jaaral na leen ci yoon woowee yoon wi tax a mucc wan na yoon wi ñëpp ñi ko nangul itam jaaral na leen ci te jaare ko ci yar leen ak jàngal leen loolu lépp bu amee nag li nu war nun nun ñi mu ramm ci àddina li nu war mooy nu sant ko li nu war mooy nu delloo ko njukkal ku la defal njëkk da koy delloo njukkal li nu ko mën a delloo njukkal nag la te jiitu mooy yoonam wii mu fi andi nu tënku ci tënku ci tënku ci yoon wi yoon wi itam yi ko lal ñëpp xam nañ ko mooy sàkku xam-xam bi bi am njariñ ak di jaamu yàlla ak am ay teggiin akub yar ak di fàggu lu lew di sàkku lu lew di liggéey liggéey bu dagan bu ñuy jële lu lew ponk yooyu ñooy ponk yoonam bu nu ko bëggee delloo njukkalit la ca jiitu mooy nu jéem tënku ci yoonam woowu ak ci ponk yooyu kon delloo ko njukkal noonu lay amee waaye du rek du doy rek nu jàpp ne sant sëñ bi moom mooy di ko wax ci làmmiñ rek te lu nu neex nu def loolu bokkut ak cant bi nga xam ne moom la digle ndax koo xam ne daa jàpp ne ci njabootu sëñ bi la bokk waaye jàpp nag ne lu ko neex mu def te bu ëllëgee itam jàmm rekk ciy mujj sëñ bi loolu tuddewu ko ak rafet njort tuddewu ko ay teggin da koo tuddee wéye njort wéye njort lu ko tudd moom sëñ bi dafa wax ne yàlla dafa jigéen nit ñi la mu leen jigéen itam mu dig leen ci aw yiw ku ko def mu dig ko aw yiw yàlla yit dafa tere nit ñi la mu leen tere itam mu tëkku leen ca ne ku ko def ab safaan man na ko caa fekk sëñ bi nag ne rafet njort mooy di def li yàllay digle tey am yaakaar jot ca lam ca dige te lañ ca digg mooy àjjana mooy di moytu la layar tere te am yaakaar ci mucc te la mu tëkkoo te la mu tëkkoo mooy sawar mu ne nag bu nit dee def lu ko neex nag lañ ko digal mu koy bañ a def lañ ko tere mu di ko def ba noppi nag di yaakaar am la yàlla dig la yàlla digee eh. nee na loolu lu rafet njort waaye wéye njort la topp njort la moom sëñ bi ma ne yàlla na nu ci yàlla musal am na yàlla musal topp njort ak wéye njort ci loolu la waxee it ne bu nit nee dafa bëgg àjjana te du ko jaare ci topp yàlla topp yàlla bu dëppoo ak sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam ku def loolu ak wor ak woru rek la koy jural ëllëg mooy bu ëllëgee dana xam ne loolu du ko amal njariñ noo ngi ñaan yàlla kon mu fayal nu sëriñ bii nga xam ne moo nu xeetli ci àddina te bu nu ko delloo njukkal itam mën a am yaakaar mu xeetli nu mu ràmmu nu ko àllaaxira delloo ko njukkal nag mo jéem a topp ci aw yoonam tënku ci ku ko def mën naa am yaakaar ëllëg mu dugg ci ram moom ginnaaw bi ñu ci duggee ñun ñëpp fii ci àddina noo ngi ñaan yàlla fayal nu ko te dimbale nu itam ba man ko delloo njukkal ndax delloo ko njukkal mooy tax ràmm gii nga xam ne dugg nañu fii dugg nañu ci ci àddina boo liggéey nu mën a yaakaar dugg ca ñoom ñaan yàlla mu defal nag wàllaaxira sàmmal mu sunum gëm musal nu ci sawara bu nu bunt yu yépp soob nu ci yoonam njub moo te suñu yéene yépp may nu fa nu gudd ak wér ak ñu bi rafet